sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokki Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal yéen nga xam ne ni yéen a seetaan si canal bi ñu ngi leen di wax di leen invité ngeen abonné si bi nga xam ne ni bu def rek ngeen mën ko am si sensé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad la euh, lépp nag mi ngi doon njariñ ak li nga xam ne def gis la kon nag euh, déglu leen te seetaan te abonné te partagé te te kulus bi nga xam ne vidéo mu def ngeen mën ko am sensé tey ñuy waxtaane sarax ni mu amee doole ak ki nga xam ne day saraxe ay mbiram nan lay mel ak ki nga xamee ne euh, lu mu yor génnee si sarax nga xam ne ne wàllu sarax moo tax toujours ñu leen di wax ni ngeen jéem a xam lan mooy seen sarax nit ki saa bu xamee saraxam rek ay mbiram dafay dox nit ki saa bu xamee saraxam nekk si néegu sëy am na sarax boo xam ne ne bu ko defee génnee ko si digganteem ak jëkkëram buñ ko naroon a fase bu génnee sarax booba kenn du ko fase muy si góor gi nga xam ne ne day wuti soxna wala muy wuti dara mu xam saraxam ñu ne ko génnee ko heure bi heure bi bu mu ko romb loola du am wor-wor mukk da ngay dem mu nekk baat ak tontu moo tax toujours sama mbokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw di bijjanti wàllu passeport ñu naan leen di jàppal suur na leen suur bii dem leen te suur bi génnee neen lii ak lii boo leen ko defee baat ak la moo tax daa dafa am nag sarax yoo xam ne universel la waaye nit ki war naa gëstu ñu xoo xoolal kay mbiram wax ko ne ko sarax bi dee ko saraxee couleur bii na nga ko fonk booy def jaaro nga def ko jaara booy amati benn xew wala nga am benn ah, événement wala nga am lépp loo xam ne ne eh, dañ sa siiw dana sa dana la sa ràññee couleur bi fexeel ba sol ko nga xam ne couleur boobu moom moo lay jàppale protection lay doon si yow lépp loo xam ne ne daf laa war a kii rek couleur boobu si moom lay yem te couleur boobu daf lay ubbiwaale moo tax Euh, képp ko xam sa saraxam boo leen xoolee fii ñi fi ñi fi raw ñépp si sarax lan lan rawee nit ñi jërul sang bu bari bi ah, ndax dafa am ñoo xam ne sax duñ sangu tey li ngay génnee sarax benn sarax rek lim la mën a indil fànqal la lu baree bari bari moo tax jigéen gépp jigéen goo xam ne ne rab da la sonal muy wàllu jinne wala mu lay merloo fanaanool ñebe bu xonq ñetti alxames nga génnee ko loolu da ngay tàggoog moom waaye képp ku wut onze kilo yi mburu nga diw ko bër def ko kilo bu nekk trois dagg-dagg nga fexe ba génnee ko saraxe ko ay xale wala nga yóbbu ko ci daara semaine boobu lépp loo si doxi lépp loo ci wuti yàlla dana la ko ubbil ba mu ba mu surtout ñi nga xam ne ne ay politiciens lan wala ay mbiru làmb lan jëf si euh, ju benn événement bëgg yàlla suturaal leen si événement boobu ñu am si naam même génnee ceeb képp ku mën a génne trois cent kilos yi trois cent trente muy fajala sax muy trois cent trois ay kilos yi ceeb nga génnee ko nga saraxe ko euh, li ëpp sens nag euh, boo ko manee deux cent yëpp na nga ko jox jigéen cent cent trente trois yëpp nga jox ko góor lépp loo xam ne ne yaa ngi koy wuti wala nga koy xëccoog nit wala nga koy joganteeku carte boo ko defee yàlla suturaal la si looku moom sarax boobu moom pour xëcco la moo tax jox nañ ko ñëpp képp ki nga xam ne yaa ngi xëcc lu mu mën a doon muy làmb muy football muy élection muy lépp defal sarax bii nga def ko waaw man maa la wax lii loo kooku moom def gis la képp koo ko def danga ma woo téléphone waaye nag lépp def nañ ko xaddiyee yéenente bi pour jaamu yàlla yëpp man see jariñu fi amaanilaa ba fan yi incha allah